mais dama wax ni euh, Golf Sud bi ñu ko taxawale ba en tant que commune d'arrondissement, arrondissement mu mujjee commune de de de plein exercice maire yu bëri jaar nañ fi maire yu bëri jaar nañ fi j'en veux pour preuve euh, que man mi nekkoon naa ci conseil municipal u en 2002 j'étais adjoint au maire mais jàpp ni euh, la ñu waroon def waroon ko pour askan bi

man ma jàpp ni war naa jël war naa jóg taxaw comme ni ma ko defee toujours parce que aussi fii mën naa wax ni l'assainissement moo jur quartier yi nekk ci golf yëpp parce que euh, l'assainissement ñi ngi ko ñi ngi ko ñi ngi ko commencé dëkk en 1974 boobu parcelle amul woon boobu Patte d'Oie nga daan jóge jaar Cambérène ñëw euh, l'assainissement donc man depuis 74 ba léegi maa ngi fii

ndax nek na président nous nous na zone jeune frère Albouri ci donc permettre vraiment ma à peu près jeunes parce que c'est des moments de jeunes euh, gis nañ vraiment jeunes ay ay ay ay en tant que adjoint au maire à de 2002 à 2008.

parce que madame mom moom ñoo nekkoon sur le terrain en 2014 muy xëccoo muy xëccoo mu nekk tête de liste majoritaire alliance 2014 ma nekk tête de liste majoritaire coalition Sopi muy wut muy wut mais xam naa ni Golf Sud ñoom na ko te moom aussi doomu Golf Sud la ci terroir bi la dëkk fi la fi la màggee fi la defee ses études vraiment ba tey yàlla joxoo responsable yi moom au niveau étatique te muy nekk mu nekk responsable yom solo ba des nag à partir d'aujourd'hui en tant que membre du parti démocratique sénégalais tant que membre élection locale je suis libéral de sang depuis 1986, je suis dans la politique amul proposition pour que je parti démocratique sénégalais mais dama suis ni mentor Je suis il a comme témoin mais comme dañu nekk ci ay élection locale da xool ki nga xamante ni moo yor le meilleur profil xool ki nga xamante ni suñ ko jàppalee dina mën a saafara taw askan bi ñu jàppale ko te jàpp naa ni mooy le président de la donc fu may jeexalee rek mooy euh, Lat Diop dafa nekk maire avant l'heure

parce que li may wax li yëpp inventé wu ma ko ku ci nekk dañ dañ teg dañ ci teg sa bët bourse yi ñëpp teg nañ seen bët permis yi ñëpp teg nañ seen bët euh, maison de la femme yi ñu inauguré bër gi dem def naa ñëpp teg nañ seen bët sans compter nag jàppale bi muy jàppale poste de santé yi loolu nga xam ne c'est une compétence transférée aux communes waaw kii toog nii conseil municipal la ci Golf Sud santé dafa bokk ci compétence transférée yi mais gis nañ ni vraiment

moom la am ci Guédiawaye football club ba tey jii Guédiawaye football club dellu si ne en première division te yàlla ak moom moo tax loolu am donc ñu ko ciy sant di ko di gërëm pour résumer daal may wax ni tey su ma ànd ak moom en tout cas jox naa ko loxo pour ñu ànd liggéey Golf Sud man Golf Sud moo ma ñor Las Palmas moo ma ñor man ma propre personne ne compte pas mais na na am taxawaay bu bu bu baax ci jeunes yi am ko ci famille am ko ci mag yi am ko ci lieu culture yi am ko ci askan bi en général loolu moo tax ma tàllal ko loxo pour ñu liggéey pour ma jàppale ko sama ak samay nit pour que au soir du 23 janvier 2022 vraiment suñ ne 18 jot na ñu ne euh, Lat Diop moom la ñu fal maire donc euh, maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di wax vive le président Lat futur maire de Golf Sud vive la population de Golf Sud sant amba ba